ba léegi mooy lu aji ci julli diine diine mooy li yàlla wàccee jox ko yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ci bàmmeel dañuy laaj kan mooy sa borom lan mooy sa diine kan mooy sa yonent donc lépp lu ñuy def ci diine rek nañ ko def comme na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam suñ demee ci julli lii moom moo tax lépp looy def rek laajal est ce que yonent bi doon na ko def sallallahu alayhi wa sallam mooy da gis bu ñuy julli nit ñi ne nii asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lii amul benn téere buy jàngale diine buy jàngale julli boo xamante ni di ko ci gis te mu nekk lu wër kon lii bul ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko jàngalu ko saxaaba yi radiyallahu anhum booy sëlmal bàyyi sa loxo yi fii nga def asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah yal yàlla déggloo diine allahuma amin ya rabbi